mbas ak l'islam islam et pandémie bon seen tànn seen thème bi am na solo mooy lan lañuy see ban jàngat dañ ci jële te jàngat boobu ñu ngi koy tiré ci l'islam ci alxuraan ak sunna muhammad sallallahu xam ngeen ne jullit yàlla da koy natt alxuraan wax na ko àdduna ci lu bari ne man yàlla danaa leen nattu ci feebar ci dee ci mbas ci nawet boo xam ne bii day gàntu mu seet fu seet suñ gëm yàlla loolu moo tax ci monde islamique ci jamono xulafaa rashidun ci jamono Umar ibnu Xattaab mbas mi gën a rëy ci monde islamique moo doon taaxunul amwaas nga xam ne ay junne ay junne saxaaba ay junne jullit ñoo ca dee juróom benn mbas pandémie alamul islaam yi xam na ko loolu lu muy firi moo dana nekk jullit te rexul yàlla nattu la lu muy firi mooy mbaax te yàlla wàccee ci yow nattu ndax loolu yàlla di wàccee ci yaw ci lay nattee sa ngëm yàlla ci lay nattee sa dogu ci lay nattee itamit sa xam-xam mbas mi nga xam ne mu ngi lëmbee àddina bi muy covid 19 mbas la moo xam ne dafa ñëw gën a dëggal njàngale lislaam gën a jëng dëggal jàngale Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu dégg ci ne am na événement yuy xew su ko jullit ñi exploité seen diina day gën a leer seen taxawaay day gën a ñoŋ en même temps dañ leen di gën a respecté tomb bi ma ciy jëkk a wax amu jullit nii ci yii di xew dañ ci am ñaari xalaat ñii dañ ne est meru yàlla la yàlla daf ñu mere moo tax mu wàccee ci ñun lii yàlla bu ñuy mere lan moo ko waral mooy bàkkaar yu bari ak topp suñuy bànneexu bakkan ak sàggane suñ diina ak sàggane lépp loo xam ne dafa baax bokk na ci suñ kilifay diina yu baax na nga xam ne dangay dem ci réseaux sociaux yi xale yi walla nit ñi di leen yàq lu mel ni xeme te ñoom ñooy kenn du wax diina ji mooy ñooy kennu réew mi ndax bari na réew yu tàkk la ko taxal jaar na Sénégal waaye li tax yàlla dimbale ñu ba léegi taxawaayu mag ñu baax ñi ak seeni ñaan ak cir ba nga xam ne am nañ ko ci yàlla bon loolu buñ ko caaxaane buñ ko xeeb ñeneen ñi ne mbas yii di am mooy pandémie wala peste wala noo ko mën a tudde responsabilité doomu aadama la parce que doomu aadama moo yàq environnement am mbedd moo dem yaa ngi fekk ndox maa ngi taa problème yu environnement am wàllu set am problème set am problème ñoŋ am su ko defee microbe yi profito ci loolu ndax ñoom it mbindeef lañ comme mbindeefi yàlla yi profito ci environnement bu salte boobu daldi di màgg dal di law et dal di faagaagal ñaar yooyu euh, l'islam reconnaître na ko l'islam reconnaître na ne yàlla day wàññee day wàccee ay ay bala ngir mbon doomu aadama ngir mu fàttali ko ne a ah, am na borom bu fi nekk boo xam ne bii war naa seet sama diggante ak moom est-ce que li ma santoon maa ngi ci wala déet reconnaître nañu tamit ne responsabilité doomu aadama ci kaw suuf yu bare bari yiy xew ndax yéen ñëpp jàng ngeen ne yàlla bi mu bindee àddina ak li ci nekk yëpp daf ko dénk doomu aadama muy amaana muy confidence amaana googu yàlla jox doomu aadama kenn bu ko doomu aadama manqué respect yàlla wàccee ci moom mbugal aaya boobu di wax zaharal fasaadu fil barri wal bahri bi ma kasabat ay dina لنذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون bon yàlla wax na ne eh, problème yi ñuy dund yëpp ñoo ko def suñu bopp su ko defee yàlla seetaan ñu ndax ñu mos coono boobu nga xam ne ñun ñoo ko defal suñu bopp eh, l'islam nag ci bon coronavirus dafa ñëw comme ni ma ko waxee fedd li gën a dëgëral ne lislaam mooy diinaay dëgg gën a dëgëral ne lislaam mooy mu nga bàyyi ko ci yàlla gën a dëgëral ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du waxantu lépp loo xam ne wax na ko jamono dina ñëw ba dëggal ko mooy foofu fi lañ toll fi mu ne nii xam ngeen ne lislaam daf ñu dagan daf ñu digal ñu lekk lu dagan mooy loo xam ne yàlla moo ko tracé ne lekk leen bu ngeen fàttale ko Ebola ak coronavirus bi bi feeñee bees li ñu wax moo de ne fële ci siin ci dëkk ba Wuhan la gaa yi dem ci marché ba jënd fa yàppu rab ñu wax pangolin te bu ngeen fàttale ko Ebola moom it li waxoon moo di ne ay xeeti picc moom la nga xam ne lislaam mayakut ñu lekk ko moom la ay nit lekk jële ca virus bi virus bi di tasaaroo di dem fu ne bon ndeketoo yee yàlla bi ñuy wax ne lekk leen lu dagan lekk leen li ma wax ne lii li ma leen tracé ne lekk leen ko bon doomu aadama bu toppee sagoom lu mu jot lekk yàlla wàccee ci moom mbugal mooy mbugal yi mooy Ebola ak coronavirus bon ñu comprendre ci ne yàlla moo ñu bind moo bind àddina bi moo bind lépp sàkkal ñu ne lekk leen lii lële bu leen ko lekk sàkkal ñu ne naan leen lii lee bu leen ko naan ker bu doomu aadama manqué respect loolu rek yàlla wàccee ci moom mbugal bon corona bi mu feeñee ne nañ yàpp bu ñu lekk la boo xam ne bii moo leen jox microbe yéen ñëpp dégg ngeen àddina bi surtout Europe Amérique ñuy tuumaante ku ne ne yaa defar laboratoire defar ca virus bi ñii ne pour faagaagal africain yi la ndax africain yi dañuy jur bu bari ñii ne pour faagaagal faagaagal jullit ñi la ndax jullit ñi dañ bari ci àddina bi pourtant bari wuñ ko de parce que un milliard presque ak ak demi ak lu topp tuuti moom mooy julli ñi waaye te àddina bi yëpp mat 6 milliards bon julli nii boo leen seetee euh, malgré seen nombre boobu waaye jaaxal nañ yeneen ñi nga xam ne duñu julli bon su fekkee ni wér na ne coronavirus dañ ko microbe la bu liggéey ci laboratoire loolu day ñëw euh, wuute gi nga xam ne moom moom la lislaam tëddal ndax lislaam dafa bokk ci li ñuy wax maqasidu sharia mooy finalité bu sharia lan muy finalité lan moo ko tax a jóg bokk na ci mooy aar bakkan bon buñ defee loo xam ne day rey ay nit loolu day wuuteeg li lislaam santaane mooy aar bakkan ci aar bakkan boobu ci la bañee xaru ku xaru dem safara ci aar bakkan boobu ci la bañee avortement boo xam ne bi dara justifié ko surtout bu bu doom ji demee ba tollu certain étape ci aar bakkan boobu ci la lislaam waxee ne ku rey nañ ko rey ndax bakkan dafa sacré dafa am solo ci yàlla bon su fekkee ni comme niñ ko waxee woon ay laboratoire ñoo ko defar moo xam ci Amérique moo xam ci Europe dem nañ ba ne Bill Gates ki ëpp alal ci àddina bi moo financé programme boobu pour ñu faagaagal euh, nit ñu new doole yi te mooy ñun bon foofu ñaar yooyu exemple yooyu ma joxe wane na ne lislaam diina la boo xam ne bii dara mënu koy wutu dara mënu koy wutu wane wane ne tamit ne lislaam euh, lépp loo xam ne digle na ko walla mu bañ ko lépp loo xam ne digle na ko walla mu bañ ko loola intérêt doomu aadama la su ko doomu aadama respecté wul dana ko gis ñëw na dëggal li lislaam tëddal mooy set yéen ñëpp jàng ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne yàlla dafa teey mooy dafa set yàlla du nangu du ànd ak koo xam ne setul yonent bi sallallahu ak lislaam li tax njàpp ñëw day dugg ci wàllu set ndax yi nga xam ne ñooy joxe microbe ci doomu aadama walla doomu aadama boo jàkkaarloo ak moom yooyu ngay jëkk a seetlu lislaam sant ñu koy raxas juróomi yoon ci bésu mu aju ci julli waaye lislaam santaane yi tamit ne suñ bërëb na set suñ yiree na set suñ jëmm na set suñ wax na set yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci lu bare bari mu ñëw ci alxuraan eh, yonent bi dem ba ne annazaafatu min imaan mooy set de pàcc la ci ngëm yàlla mooy jullit bu setut ak jaamu yàllaam day taq suuf bon corona ñëw na ne ñëw fedd li njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lislaam ndax raxas loxo yi ñuy def nga xam ne dañ ko santaane loola mooy set sa yaram bi sa yére yi lépp lu ne ci yow même sa oto sax nga war koy désinfecté pour ragal microbe ba ne ca te lislaam loolu la santaane mooy set ci sa jëmm set ci sa euh, ci sa place set ci sa yére bon corona ñëw na ne li yonent bi jàngale woon depuis mille quatre cents ans depuis junney at ak ñeenti téeméer yonent bi jàngale ko corona ñëw na ne dëggal ne njàngale yonent bi dara mën koy remplacer Eh, loolu eh, bëggoon naa ko ci wax yonent bi sallallahu salaam xam ngeen ne wax na ci hadis ne bu guddi jotee nangeen dëpp kopp yi nee bu guddi jotee ndab yi ngeen doon lekkee na ngeen ko muur mu ne bu guddi jotee su fekkee amoo ndëpp couvercle boo ko muuree fobal bant teg ci kaw ndab li ndax ci guddi gi am na bés yoo xam ne walla heure boo xam ne ci at mi balaa yi yëpp ci lañuy wàcc ci kaw suuf su fekkee kaas bi nga naanee dëppoo ko cin li nga toggee dëppoo ko léegi balaa mën na ci ay wàcc boo ko lekkee mu indi la mbas bon te fi mu ne nii buñ gisee même jigéen joo xam ne dafa set bu ngoon jotee muy këpp këppi di raxas ay kaasam di dëkk di dëpp di raxas ay ndabam di dëkk ñu ne tubaab la pourtant lislaam moo santaane loolu beneen bi ci nekk comme secret mooy ne na boo amul loo ko dëppee na nga fa bant galan ko ci xaama ñëpp de mais ñun fële ca Saalum bu xale duggee lël buñ ko xarfalee ñam bi nga xam ne dañ koy yóbbu ca ca njulli yi ñam boobu ñi koy wax pann ñun pann lañ koy wax ca Saalum ñam boobu bu guddi jotee dañuy fa benn bant galan ko ca ne pour musiba saytaane du ca dugg ndeke loolu njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa la suñ mag ñi daan ko def ñuy koy def ci lël gis nga ne bon am na yu bari yu mag ñi doon def njàngale yonent bi la suma kalaas bi nag suñ demee ba nga xam ne àgguñ ca dal di contre di weddi li mag ñi defoon di wax ne euh, dellu gannaaw la walla ñàkk yeewu la maa ngi koy wax beneen bi corona ñëw dëggal ko mooy daw mbas xam ngeen ne yàlla dafa wax ne bu leen dugal seen bopp seen jëmm ci lu leen dolor wala tulqu aydikum ila tahaluka bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pratiquer ko applike ko mooy suñ demee ba nga xam ne e, mi am na bon nit ñi dañ war a daw beneen bi mooy li ñuy tuddee e, quarantaine lislaam yonent bi dafa ne boo nekkee ci dëkk su fa mbas amee ba fa génn su fekkee ni mbas am na ci beneen gox ba fa dem bon loolu lislaam moo ko jëkk santaane ñu appliqué ko bon masir barrière yi nga xam ne jël nañ ko lislaam moo ko wax jëkk wax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo booy óbbali ñun ca Saalum bébb li lañ koy wax booy ëbb li ne attiso soo koy def na nga muur sa gémmiñ na muur sa bakkan ndax amaat na lu baxee ko ci yow lor ki nga dendal bon mooy masque yi nga xam ne yéen a ko sol bon lislaam noonu la ko gisee woon moom mooy booy ëbb li nga muur sa bakkan sooy waxi tamit nga bañ a jàkkaarloo nit ki direct parce que liy bayee ko ci yow mën na koy lor bon loolu lislaam Eh, l'islam solidarité moo ko njëkk woote mooy gis ngeen corona bi bi mu amee état yi yëpp génne ay fonds pour dimbale nit ñi l'islam moo ko njëkk woote ne nañ dimbale ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne képp koo xam ne dafa am ku wàññeeku ci moom ku am dëj yow bul togg say dëkkandoor ñooy togg andil la mais yow waroo fa togg loolu muy sunna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bon heure biñ ma mayoon jeex na loolu laa amoon lu ma ciy wax e, tem la bu yaatoo yaatu mais ragal naa ne ki nga xam ne moo may utu doy na place am pour mottali li nga xam ne mooy e, ahlu kunta e, ñoom seen expérience ci cas demee nii wasalaamaaleykum wa rahmatullah thème bi thème boo xam ne moom moo xew mënuñu def gàmmu mënuñu def conférence wax ñu ci pandémie ci mbas mi parce que finalement mooy problème àdduna bi non seulement Sénégal mais àdduna bi donc forcément loolu moo tax moo ñu inspiré ñu woo ay euh, kàngam ñu ci ay fànn yu bëri ay docteur ay sociologue ay économiste parce que pandémie yooyu yëpp laal na ci. damay njëkk d'abord ci turu président du comité scientifique Serigne Mohamed baabu di kondaane di naqarlu. di mettit lu yi nga xam ne def nañ ko jëmale ko ci ngën gi mbindeef ndax moom mérité wul loolu ndax li mu représenté ci humanité jariñ ko ci imaanité nga xam ni ñëpp xam nañu bi muy andi mission mission l'islam fële ca màkkatal mu karrama fekkoon na fa ñu doyadil nit xañ nit xorriya maanaam liberté xañ jigéen lu baree bari mu ñëw taxaw temm di xeex ca jamono yooyee di septième siècle xeex ba tey fépp foo xam ne nit nekk na fa waxuma sax jullit waaye nit rek tey kooku doy na référence donc loolu vraiment képp ku bokk ci ëhlu kuntiyu di nga ko métitlu dinañ ko ñaawlu dinañ ko kondaane ñuy fexe tamit ba yu mel noonu ñu koy moytu ndax ñëpp xam nañ ni ahlu kunti yu seen mission comme ñu ko waxee woon sànq fee ci biir tànt bi seen mission première mooy docteuru société lañ ñoom bépp crise bu mës a am dañ ciy xaar seen réponse te noonu la ñu mës di def crise bu mës a am dañ cee taxaw andi ci ay réponse andi ci jàmm andi ci ay saafara wax dëgg yàlla kon nag loolu daal ñu ngi koy mettitlu ci turu président comité scientifique nga xam ni tey mu ngi wax moom it ci turu ëhlu kunti yu yëpp waaw bu loolu jàllee nag ma ñëw ci sa laaj thème bi bu ni ko jëlee tey dafa dëppoo ba tey ak jamono ndax xam nañ ni mbas mi am na ay yàq-yàq yu mu jural waaye aussi am na ay njariñ yu am solo bu ñu koy fàtte yàqu-yàqu yi bokk na ci bakkan ay bakkan naam rot na ci lu bari xaañ nañ ñu ko maanaam économie bi aussi nërmeelu na moo tax sax ci biir thème bi relance économique sax feeñ na ci loo tax ñu jël l'exemple de Cheikh bu Mohamed Kunta wante aussi bu ñu fàtte ni jural na ay njariñ l'islam bi ndax set gii ñuy wane tey ba ku nekk di raxasu ñu koy santaane muy les mesures barrières mais l'islam a ko njëkk a santaane ah, an nazafatu min al kon léegi ñun ñun ñu daan sax euh, jàppe neen ñu daan wax te xam nañ ni jullit julli juróom yëpp liñ la sant bala nga ko benn ci def benn da ngay laab set foofu la tàmbale. Lu Kountiou pour lancer un appel lancer un appel euh, à la population sénégalaise askan wi waaye surtout ndaw ñi parce que li ñu gis moo di tey fu mu toll ni yaakaar yi dafa tas ndaw yi ñoo ngi jàpp ne tey seen ëllëg dara wóoratul ñoo ngi jël gaal. pour dem wuti bitim réew jàpp ne foofu la seen mbir di baaxe moo ne dara dara dara firndeelu ko ndaxte li fi xew moo xew ci nasaraan yi kon tey jafe-jafe yi ñu am ñoom it jafe-jafe yooyu lañu am dama bëgg a lancer un appel pour wax ndaw yi nañu delloo seen bopp ci yàlla ndaxte doomu aadama loo munti mel euh, sa dund yàlla moo ko yor da ngay sabablu nag waaye dund bi yàlla moo ko yor kon mbas mi fi nekk Njaasaan ba mbas mi tàbbee ci kaw àdduna ba léegi ba ba muy yegg si Sénégal daanaka Njaasaan ak xalif général bi musuñu teggi seen tànk di ñaanal réew mi ndax yàlla teggil ñu feebar bi ndax yàlla delloo si xel yi ndax yàlla delloo si yaakaar yi ci doomu aadama yi rawatina ndaw yi